mooy ci ministère de l' éducation nationale ci mënuñu comprendre mu am benn frange population boo xam ne dañ leen écarté mooy ñi nga xam ne dañoo am feebaru bët c'est-à-dire du ñu gis seen gis-gis gaawul léegi nag mu am benn traité boo xam ne mu tudde ko traité de Marrakech boobu depuis 2013 na ko Sénégal signé pays bëri ñu signé ko te mu des lu dul ratification bi Sénégal nag ñuy daw pour ñu ratification bi lu muy jëriñ day tax suñu Euh, mbokk yi nga xam ne seen bët dafa gëmm ñu mën a am accès au savoir c'est-à-dire tey benn silmaxa mënul liir ay livres yoo xam ne tey euh, benn écrivain bind na ko parce que amul autorisation pour ñu traduire ko en braille tey boo amoon benn koo xam ne ba dem dafa suulu ñëw assemblée nationale ak tout ce qu'on a comme loi du ko mën a liir